mbër mais mo nga bëgg yoon ci Yàlla Muhammad nabi asi mais moo Papis Xaadim deux minutes rek deux minutes rek. non soxla si. soxla si mais man sama liggéey laa doon mais kii mu jàll. mais kii mu jàll. non man moo taxawal. mais kii mu jàll. moom ñu ngi lay jaar di la bëgg. tey nga ñëw gis nga ñëw si rajo Bombardier ñi ñëw jaale si mu nekk sa frère nekk sa mbokk tey ngeen boole yéen ñëpp ak xarit nga ñëw borom ak lu làmb lépp ñëw ngeen ñëw jaale si muy lu rafet loolu ban message ngeen laaj si loolu. waaw d'abord. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañ koy ñaanal. yàlla na xëppee àjjana suuf woyof ci kawam suufu Touba. amoo di wax senegal moo ñàkk monde làmb ñoo ñàkk. parce que Pape Dia xam nga kenn la woon ci sport. rakam danaan bëre mais moom ñëpp la boole woon def leen comme ay frère xam nga ba tax na tey Sénégal yëpp ñoo ñàkk dañ koy ñaan rek yàlla yërëm ko xaree ko àjjana dañ mhm. njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo mhm. fu leen féete woon pour yàlla féetal leen foofu jërëjëf li nga loolu rafet na merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax Thank you.